Khalifa Sall. waaw Khalifa Sall dafa am deux temps ci carrière politique am Khalifa Sall biñ koy dugal kaso moment boobu ñu tax sax mu dugg kaso mooy bu demoon élection Macky Sall mënul fexe ba du dem deuxième tour. c'est ça la ay affaire caisse d'avance ak yëpp c'est du damn shit amul ay sondage la yu wane clairement que ni xalifa Sall bu bokkee élection en 2019 mooy Macky Sall perte na nguur gi bu ñu naxante loolu moo ko dugal kaso en même temps pour man li mu def 2019 erreur politique la. c'est-à-dire jàppale Idrissa Seck. déedéet bëgg bokk bi. loolu erreur ah, woon préparé wu pour deux mille dix neuf. déedéet. laaj ma lu tax lu tax. entre deux mille dix sept deux mille mu laajoon mënoon na ko am mënoon nekk premier ministre bu ko neexee. élection yi jàll yëpp ku mu bëggoon a élire mën na la élire lu parce que boobu li Macky Sall mënul woon a nangu mooy jàkkaaloo Khalifa Sall. position boobu boo ko amee danga koy exploité pour dëgëral sa bopp pour mën a préparer mais doo dem au clash Khalifa Sall. ah Tanor l'avait prévenu. xaaral la rek Tanor a ko wax dëgg. mënoon nekk premier législative locale yi mënoon na fallu ku ko neex am lu ko neex ci nguuru Macky Sall tey nii mu taxaw par force te kenn ci mën dara ba pare nangu parti socialiste par force. que Tanor nangu wala mu bañ a nangu maanaam moom bu toogoon c'est tout bénéf pour lui da nga la bu bëggul woon bokk 2019 c'est tout bénéf pour lui léegi nag mu ne day dem ñu xeex ko yàqal ko nangu li mu amoon dugal ko kaso tu sais le temps politique court bi na pendant que mu nekk kaso di redressé wu benn phénomène génn bu tudd Ousmane Sonko ñëw jël envoyé sans politique bi muy génn prison fekk na booy bi jël na lu bari. mu ñëw aussi lu mu conseiller beneen pôle mu def erreur dem tafu ci ginnaaw Ousmane Sonko. tafu bi mu tafu ci ginnaaw Ousmane Sonko parce que yeewu Sonko kese moo fa doon feeñ. dafa tax mu ñàkk visibilité ba élection yi di tës des six mois.